mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, di leen ziar di leen jaajëfal di leen baalu ak di wéy di ko sàkkutu yéen di leen bëggee bu baax a baax di leen kontaanee di leen bëggee bu baax a baax a baax macha allah comme ni ñu koy faral di defee rek di leen toppal di nga xamante ne mooy xale yi tey nag ñu indil leen beneen xale naam indil woon nañ leen ko nag wax dëgg yàlla te ñu indiwaatal leen ko euh, muy Marème Naar naaru prince bi ndax ku ne xam ne ne suba euh, prince dafa jëm ci bis moom ak ki nga xamante ne mooy Jokkel mu nekk combat boo xamante ne mën nañ ne Naar bokk na ci li lancé combat bi euh, ndax combat bi prince amoon moom da koo woon ba ci ñu bëri bu ñu xamee prince grâce à Marème Naar mu amaat beneen combat boo xam ne Aïcha suba la war a am fi nga xamante ne mooy arène nationale muy prince ak Jokkel tey ñu toog ak naaru prince bi borom day zembere rek borom amul arrêt borom day mboole xale la gaa yi muy génnee moo doy waa temps yi nag muy toj yi macha allah tey ñu dala ko Euh, comme ni ñu koy defee rek Aïcha ci àndal moo nekk ci caméra bi saa su nekk rek ayaa ngeen ciy àndal moo nekk ci micro bi dama koy nuyu ah, moom Marème Naar jox ko mu nuyu après ñu continuer li nga xamante ne mooy waxtaan bi Naar Presse maa lay nuyu. sama xarit bi laay fay sama doomu nday wi si ginnaaw Aïcha <laughs> waaw maa ngi nuyu ñëpp tamit di fay ñëpp waaw ñi may bëggee tamit chaque jour maa leen di nuyu du leen fay comme noonu. waaw di ma ñi may bëgg maa leen di raw ba kañ barki yàlla jàmm si yéen ñi may topp rek waaw comme noonu. mais Marème lug bi moom ban lug la lug bi rafet na de. waaw man la Marème naa bi naaru prince la njaago bi chaque jour fu muy tëll li may yox la jëlee ji ko. ba paas da nga ñëw indi bi kase kase tey ñu ñëw nga teg ci xaw ma est-ce que nekkul benn la jëlee ko la bi ma yox la jëlee ji ko pour suba lañ koy jëlee incha allah. la jëlee ji ko. <laughs> ayca Marème yox la jële ji ko tey bii la keree suba pour arène nationale combat prince ak ak jokkeel mais suba ñu jëm ci bis bis la boo xamante ne bis la boo xamante ne ginnaaw raay gi yëpp ñoo ngi koy waaj Marème suba euh, nan nga nar a ñëwee suba. comme noonu rek damay indi yeneen feem rek comme su wax rek man sax combat prince ak may ñëwee subaa ma indi yeneen feem dafi leneen affaire comme noonu kenn la zembere foofu yëpp. Mhm. mboole ko. Mhm. waaw kenn du la wax. comme noonu day zembere rek. ma lan mooy zembere. Zimbre rek kàllaama la rek boo xamante ne ginnaaw waaye nga ko amee si Marème Naar. te mu naar bi lépp si man lay xewee man la. <laughs> du kenn naar bi la waaw. mi gis naa Zimbre temps yi xale yi nañ ko lu ñu wax ne day daw day Zimbre day mboole. waaw Zimbre waaw moo tax gisoon ndeysaan borom Grand Yoff woy si lu neex Pape Cona ah Cona woy na ma lu neex man tamit jàmbaar la borom Grand Yoff gis nañ lim Zimbre si réew mi mais dinañ ko Zimbre ba mboole si ko fi mu nekk kenn la wax. kenn du la wax fecce gu ma ko sax bàyyi ba suba bañ daan ba demaat foofu feete ji ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ay ku ne xam na ne presse def na open presse euh, barki démb yàggul mais dañu gis am na ci benn waay boo xam daf ci bi sa digganteeg moom lan la da ngeen meroo woon wala dafa am benn rank ñëw dafa am lu mu la dencaloon ginnaaw bi lu duggee dugg ci réseaux sociaux yi coow li bari ku nekk daan mareem naa kii lan lañ jotee mën nga ci indi ay ko jotee maa dara ko ñoo bokk dëkk waaye ñoo bokk ginnaaw raay. amaana ni ma mel si Prince moom tamit lu ko raw la mel si Prince waaw xam nga ku ne xam na ne mbër booy bëri si làmb le lay moytule jigéen mais du dara xëy na mooy loolu loolu la woon rek te ñu ñëpp ñoo far waxtaane nañ ko mooy loolu rëccu na ko moom mi ko def sax barki yàlla xameewu ko woon nii yëgeewu ko woon nii esa yaramam wax rek ku nekk xamal rek ñun presse suñu toll suñu la bu suñu yaram tàngee dañuy def loo xamante ne doo sax comprendre ma la wax ñun buñu tollee ma esa yi presse buy sama yaram def naa madam naar lii ak lii yaa si defoon man leen presse moo ko waral xam rek ku nekk ak ni mbër men si yow daal te ñun presse fu ñu toll la wallahi la azim presse ñu toll la presse dañ koo bëgg ñun amuñu lu dul njool mi suñu ndoolu njaawoo mi te da zembere rek da koy jële la wax yow mooy loolu. ayca bi ko defee pare yéen ñaa déggante ngeen téléphone toog ngeen waxtaan mu xamal ne la yaram bee tàngoor wala après lan la nañ mooy li ma lay wax rek déggante nañ naaj mu nandal ma lépp waaw xamal ne ma kom ni yaramam tàngoor la heure la parce que ki bokkal période nday ak papi boo seetloo ci biir affaire yi ngi ko doon bëgg a. Mm-hmm. waaw jàppanteeg moom. mais après loolu heure la loolu mooy loolu loolu après bu lamb ji jeexee lépp nañ waxtaanee. bu ñu jëlee victoire bi suba incha allah. après nañ ñëw toog waxtaanee ko. Mhm. bi loo duggee ci réseaux sociaux yi amoo ci amoo ci kees amoo ci gàcce amoo ci lenn loo xam ne tey lenn lu la dal la loo xam lu ma dal ci presse dawul sama yaram. Hmm? man ku ma jamoon ci presse sax may xëy fajojo après ma fàtte ko. parce que presse jaral na ma lu raw loolu. Hmm. njaago bi rek laay topp topp ma ke njaago bi rek ma ñor. Hmm. njaago yi rek laay topp. lu amul njaago bëgguma mhm. waaw ñu gis nga nekk ci biir open press bi yow jigéen yow kase seul donc comme ni nga koy waxee ñu gis nga nekk ci biir open press bi dagg sa yaram sol sa ensemble bu rafet def say carax sol sa kawas mareem nga yëngal open press ñëpp di waaw maa fa am naaru presse bi la yow oh. day zembere rek presse nee naa lu lu mu dugg maa nga ca mhm. lu mu le ma ne ca mhm. baak sëñ Fallou maa ngi ci ginnaaw presse aller fépp nag te day gën a zembere day gën a mbooli ca kenn du la wax yow. ndeysaan <laughs> Aïcha ñu dalal na ne Aïcha euh, suba euh, ki nga xamante ne mooy presse dafa jëm ci bis boo xam ne combat bu Sénégalais yëpp ñu ci bëri sax mën nañu wax ne combat boobu mooy bokk na ci ñuy lancer presse ndax ñu ci bëri nga xamante mooy Pikine ginnaaw raay di ànd ak presse te nëbbu ci dara nee naa la chaque jour comme ni muy wax chaque jour da koy yoole day zembre day mboole ca kaw amul arrêt yëpp ay slogan la ñu nangul ko ko xale la boo xam ne bu créé day neex bu feccee day neex waaye bu ñëwee ci làmb Prince lu ko saf ak lu ko neex lay day dem ba nootul xàmmet sax Marème Naar ay ca Marème suba euh, ngeen jëm ci bis bi yéeg na waa Jokke yaa ngi jël ay bal ah, la foofu wax du bari. Ah. da ngaa dof <laughs> wax du bari doomu ginnaaw la moo tax ñoom xam nañ ma bu baax a Kër Massa seen wax du bari ci man waaw ah, joker moom ci boppam sa waxam du bari ci man. Mhm. waaw mais gis naa ku la ciy sànni xeer naan Marème naa du 100 francs du dara day. kii ah, waxam day bari moom du ma 100 du ma na ba suba ba suba la lépp di leer incha allah. Mhm. bu ñu leen jàppee dañ leen di defaral affaire ba pare indi leen ginnaaw raay féexal seen xol loolu du dara ñun ñoo ko fa am. Mhm. day zembere rek comme ma lay wax. nee naa la bu ko peres jàppee. joker sa wax kilifa la ñu waxam waxu kilifa la joker. na ma naan ñun lay teg dil ñun lañu mbër mu mbër ancien lutteur ñu ngi fépp taxaw di ko xaar Joker uh-huh. mhm. ñu ngi fépp taxaw di la xaar uh-huh. waaw mais dañu gis baatara ko daw ñu dara ñun uh-huh. doomu ginnaaw raay ngay waxal de te ragal di jéggi raay bu na dee jéggi raay ànd ak doomu ginnaaw raay comme li ñu koy wax chaque jour rek Joker na ñëw def yëfu kilifa ñu daan ko daanu kilifa mu ñibbiwaale ak moom bu wonee yor ñu won ko ba mu jeex bu ko rombee nag mm. xale dal sa kaw de. Ah. kenn du la wax. mais ñu gis coow li Marème da nga koo yanu Marème dafa yanu coowu presse li foo tourné Marème naar da day zembere day daw te góor ak góor ñoo waroon di ko raakoo di sànnante ay bel mais ñoom gis nañ ñoom góor ñi yow la ñuy sànni bel yow muy jigéen. waaw ah, man soxla man la naaru presse bi moo tax man mi ñu soxla nee naa ñombe laa wax si man dangay ŋàng mu ma ngay def dangay dof xanaa man ñombe laa man si presse mun naa si def si lu ne si presse mais bu dul presse doo ma dégg si dara aw ma jotu dara. mais Pérez buy xewle barki Seydina Mouhamed damay dagg sama yaram def lu ma saf g film def lu ma saf ba subaa jàmm la lépp de leer incha allah sa diggante ak Pérez sama deret la sama waay la li may wax chaque jour Pérez ñoo bokk dëkk waay bokk ginnaaw raay muy lépp nag di sama deret sama lépp di ñaanal suba yaa ma gën a xam yàlla may ko ndam ñu gën koo waxtaanee incha allah ah, mais Marème est-ce que suba dina yomb nu muy yombee day ñëw humilier leen duma leen dóor leen daan leen suba du yomb ndax xale ak paa xale ak paa la day ñëw defaral paa te day bëgg a bañ ñu fekk ko fa defaral ko lu ñu koy defaral romb ko ñibbi mhm. loolu koy wax amul foofu mhm. joker kay moom loolu du yomb ndax koy bëgg a ko attan mhm. mais presse li ma lay wax rek bu ko daan daan ko rek ah? bu jëlee bi bu ko dugal ko muy toog xama rek après mooy loolu defet bi day xaw a ñaaw <laughs> rafetalal defet bi rek comme noonu. Ah. mais yéen ko daan ko humilier ko est-ce fi ngeen teg combat tamit. non teguñu ko ci cadre pa sax affaire du cadre pa xale sax mais xam fa lañ ko teg comme Joker instant yi nii boo bëggee dégg dëgg presse moo ko gën a soxla Joker presse moo ko gën a soxla fuuf. foo teg ne presse moo ko gën a soxla. waaye Joker nag dañoo xamante dëgg Joker nag bu réew mi Joker lu mu wax nee na lamb ji kan moo tax mu jël ko ma rem naa te boo man man mi tax nga jël lamb ji man maa la gën a soxla lamb ji fuuf te man presse laa yéene victoire te da koy jëli ji sax yow Joker dama nga tëdde waaye mag nga ma mer la wala jokkeel jokkeel li la ah, bu la daanee dañ lay indi ginnaaw raay may la ñaareel. daa am na benn jabaraa. Ah? Ah, lañ wax de. xanaa lañ koy may ko. man dafa dof xanaa. day xaar. jokkeel moo nekk ci moom. njaago yi rek laay topp. mais suba euh, bëri bi ñu bëgg ci presse mu andil ko jokkeel ndax gis nañ combat bi passé dafa mbot mbot boo xam ne macha allah mais est suba loolu dina ko andil ki nga xamante ne mooy jokkeel. waaw presse incha day bëre lu da koy bëre bu neexee yàlla. Joker bu day Joker kii la adversaire la comme yeneen adversaire yi da koy bëre incha allah bu neexee yàlla ñun Joker ñu ko wax jee fi nekk rek mais mbër la te dañ ko koy nangul def na fi kii bu ne def na ko fi waaw te bu neexee yàlla pene dina bëree moom comme ni mu daan bëree yeneen bëri bu koy yokkul sax te dañuy bëree moom defara ko affaire daan ko mooy loolu comme li ma la wax dañ koy jëli ji dem incha allah yoon bàyyi yoon ba ngi mu ngi ñu tracé waaw mais jokkeel dafa yàgg ci làmb jokkeel bu abbi siflé xam na fi muy dóor jokkeel bu abbi siflé bu waree jàpp xam na fi muy jàpp te peres njool la peres njool la xam na fépp yaa ngi dégg peres njool la xam na fépp jokkeel dafa yàgg si làmb mais peres dafa nekk xale teel a mbapat def lépp def na lu ne si mbapat am na mbër yu mag yoo xamante ñu ngi fii di bëre ñëpp di daan barke Seydina Mouhamed jaar nañoo ak peres peres defaral leen affaire kon jokkeel peres kenn du ko wax nooy bëree xamala lañ koy wax dalal sa bi dem ak dal rek liggéey li nga war a liggéey mais presse moom xam na lu muy bëre bu baax loolu kenn du ko waxati waaw comme noonu man koy def waaw dem feesal stade bi bëre bëre bi daan daan bi ambiance ambiance indiwaat victoire bi ginnaaw raay waxtaan ak waa ginnaaw raay féexal seen xol kaa bi la amul leneen loolu kese la yaakaar nga ko ci combat lépp moo daan mën a nekk de ñu ñu ngeeg lépp foo ñuy séntu rek ñu ngi foofu ñu ngi fukk a gën a garaaw te mooy loolu kenn du la wax yow toogal li xool xibu say bët ba suba jàmm. bu doon yaay conseil presse tey arbitre war a siffler nga ba mu ñëw loo koy conseil ko xam na laa koy conseil mu dal rek dal rek laa koy conseil bu mu yàqamte làmbam bu mu def dara na dal bu dalee rek day jëli ji lépp incha allah bu dalee rek bu ko dal mayee lépp rek ak bañ a bàyyi mbooloo mi xel liggéey pour nit ñi day indi lépp incha allah bu neexee yàlla. Mhm. Jokal daal loo ci mën a dégg nee na moom fi mu toll nii dóor mu daanu la indiwaat. Jokal ne ko ne ko peut du kii du xiiboon de <laughs> gisal njool mi rek xeeb ko de njool da dafa liggéey de booy day fajar di liggéey ko day daan léegi continué waat dem liggéey di ko caaxaan dugal ko si làmb ko seen di ko xeeb de booy mbër nga àndal de Jokal mbër nga dajal mbër mbër kaamil te di nga bëre waaw mbër bu dajeeg mbër kon làmb day neex uh-huh. mbër la mu dajeeg mbër kon foofu làmb la làmb day neex foofu. xam nga ne suba combat bi ci yéen. waaye lees waxul yàlla noppi na. jokkeel mi ma gis ne la lees waxul yàlla noppi na. ah. déggoo li la tontu. mais lees waxul yàlla noppi na na. waaye xam ngeen ne suba combat lu mën a xew du yomb. laay lees waxul yàlla noppi na bu yàgg. ayca ah. hmm. am na solo macha allah ñu dalal ko moom Marème Naar euh, naaru presse bi euh, ndax ku ne xam ne moom it miin nga ko ci dakaar Dakar pour à chaque fois rek ñu ko doon laajaat moo tax tey ñu andi leen ko li may faral di wax rek seen yitte wala seen soxla ci la ñuy dox. Marème nga nekk xale tey xale yëpp bëgg la. foo tudd nañu naan Marème Naar Marème Naar sa secret lan la. ba sëñ rek. billaay kenn suñu borom rek moo may taxaw suñu borom moo may dimbali rek yaa ma gën a xam suñu borom moo may dimbali booba tey ndeysaan ñu bari dañ maa bëgg Touba ay Thiès barki Seydina Mouhamed benn booy bu tudd papa day xuloo ndax sa barki Seydina Mouhamed ñu bari dañuy xuloon ndax man ay waa yaraax wuyu bari ñu bari dañuy xuloo man géejawaay ndeysaan benn meer dafa ma bëgg foofu chaque minute booy maire bi lu ne la may defal si taranga mais yéen ma bëgg aw seen fay barki sëñ Fall li ngeen may defal si teraanga lépp maa ngi koy gis mais yàlla leen yàlla fay mhm. ñi ma bëgg te yàlla tax maa raw te yàlla tax mhm. bak sëñ Fall ñëpp am jàmm yàlla jàmm yàgg yàlla jàmm sax Sénégal mhm. ñiy wax lu ñaaw nag di wax lu bon moom kenn mënu leen ko tere na ngeen siy di si nekk suba ngoon man ñu may waxal lu ñaaw fan essay boo duggee si TikTok may rey man deewaguma léegi di yàlla soxlaaguma maa ngi miyaa maa ngi gis loolu mais ñooñ dañoo am suñu jot rek barke sëñ Fall leen bàyyi di lijjanti ñoo xamante ne bàyyiwuñu leen sax xel ñun taluñu leen sax yëguñu sax yéen a ngi dund Mm-hmm. mais yàlla noppi na li ngeen gën a xew yaa ngi miyaa peut-être loolu moo tax. waaw sant yàlla rek maa ngi miyaa dañu yokk sant suñu borom la ndax lépp yàlla la. miyaa mm-hmm. takkul naanu ma rem naar waxaale ma ko ñëpp lépp yàlla la. Mm-hmm. wallaahi mosu ñoo toog si nit ne ko defal ñu lii wala lépp yàlla la. Uh-huh. sant yàlla rek di ko def. yàlla rayulee dañuy féexal xol yi. chaque jour di ci dëkk. bak sëñ Fallou. wallaahi. lu neex. lu pàcc loo xool. mu ne ko lu neex. ana waaj. waaj mi ngi fi ma koy bëgg mu may bëgg ñu àndi bëggante du dund lu doy waar. ah yéen ko yéen da ay copain lu neex. bëggante du ko dund lu neex. Uh-huh. da nga dof xanaa. ñuy wax nag naan yéen bëggu leen nag ay taxawaalu ngeen bëgg wër. ñoo ko tal a ngi fii fii. fan lañ ma gis gisuñu ma fenn man benn xol laa yor te xol bi joxe naa ko ki ma ko jox moom xam na ne moom laa bëgg te moom tamit man la bëgg. ñu àndi bëggante du ko dund muy neex yàlla na ko yàlla defal jàmm. des fois di ngeen am problème yéen ñaar. kooku du ñu am problème damaa bëgg yow. mais des da ngay bu ñu am problème na yàlla musal si problème bébé. bébé yàlla na yàlla musal si problème bébé. mais des fois li ji day mer day naa ma ay. lu neex. maanaam ko. kon wéro maanaam amoo jëkkër far waaye jëkkëru xol la waaye <laughs> bëggul yi yëpp dama koy tere barki yàlla ay nee ma ngir yàlla bàyyi moytul ma micro yi balaa ñu lekkal mais dara yàlla baax na bak sëñ Fallou day ñëw de ndiis bi yaa ko fa am mm. surprise amee nag. yàlla baax na. su surprise yàlla baax na <laughs> lees waxul daal. tontu lees waxul yàlla noppi na. Ah, waaw day gën a neex surprise surprise waaw surprise bi day neex sax ndax presse da koy jëli ñu toog waxtaanee ko loolay surprise bi surprise dàqul victoire man sama surprise dara dara ma ko lu dul presse daan uh-huh. bu presse daanee moom la sama dëkk bi di gën a neex mboole bi zembra chakaw doo xool. doo <laughs> ñamal tuuti ambiance bi xool. waaw dafa la koy mooy rek. non suba non ma lay suba suba ba teel ku di teex ñàkk la. ku teel fan la maa ngi ko ñu presse yéex ñàkk la ku teel te yow doo ma gis. Mm-hmm. lu garaaw laa yoon ko suba day mbooli rek. day zembere ca kaw. ñoom may ñu benn benn kii maa ngi yokk rek defandoo nañ ko mu neex ñëpp di ko wax. ñu dagg si tey nag tey dañuy ñëwaat ci leneen tey tey loo bëgg ñu ñëwal ñu dagg seen yaram rek ñëwal. ñëwal nii eh, <laughs> mënuma nagal man dagg mënuma mënuma li ngay def nii. xam nga yoonu presse yow. day eh, daw rek. <laughs> ma ne bii bi dafa métti bi. non bi waaye li daa métti li benn taala rek nii lan la entraînement la wala lan. entre du entraînement xale koy def rek comme li ma la wax. Ah, non non. bu toll si tànke. Aïssa da koy mun rek. Aïssa mën na ko mun na ko <laughs> dagg dagg sa yaram mooy ah, dagg sa yaram. mooy kàllaamu la rek comme li ma wax rek. barke yàlla kàllaamu la rek. Mm-hmm. bu subaa ngay xam luy dagg sa yaram incha allah yéex ñàkk boo teel te yow doo ma gis. boo teel te yow doo ma gis fajar maa ngi ko ñu peres laay fanaan. ñëw leen fanaan fii laay fanaan ko ñu peres si mbedd bi. Ah. Mm-hmm, si Baye Fall fa laay fanaan ba fajar. ñu ñëw waxtaan paa da nelaw dagaan na door paa jaay nañ lali jaay lépp. <laughs> léegi ñeneen ñi a ñëwaat ñëppay ñëw mafia bi ñëppay ñëw ñëpp ñëppay ñëw mm-hmm. waaw ñi ma bëgg ak ñëppay ñëw ñu bari nee nañ làmb ji maa leen yëkkati am ñoom dañuy jógee ba Touba ay Thiès nee nañ maa indi te dañuy ñëw te dañ koy zember te dañ koy jëlin gis nga mbooloo mi presse nar a indeeti biir stade incha allah suba ak jàmm presse yàlla da koy suturaal da koy may barke yàlla. Marème dañu gis nga engagé wu ci presse sax dawoo ci dara. Marème lu la wax ci nga lu ma la boo ma jamoon léegi léegi si presse ndax presse ma werante ak yow si presse nga jàmm ma xëy fajo ju ñëw toogaat la yoon ndax presse ma ko jaral. yëgul bëgg ba dof fu bëgg nga toll. njaagoy rek laay toppee wala déggoo olof boobu. ñu ne ñu ma kenn njaagoy sël lu amul njaago bëgguma a di sant sama karaakaraa bi comme dab tafakara chaque jour mu jaar ak man fu baax barke sëñ Fall tiseeti baax yi yaa koy defar man jàmbagat yow laay topp ma lay topp ba kañ sama karakara bi tiseet bu baax bu ma sol yaa ko defar jàmm si yow rek barke sëñ Fall. mais combat combat yeneen combat yi gis nañ la rek stade mel ne Pokola Pokola tamit sa nit la. sama waay la kooku sama deret la di sant Pisco Pisco kooku damaa bëgg jàmbaar la barke yàlla démb laa fa dem mu tere ma xolam mbuusu yëre la ma jox barke sëñ Fall te Pisco defalu ma ko dara. wallahi alazim moom mu bëgg ma tax yàlla tax rek di ma waaye Pisco yàlla na sa jaamu yàgg Pisco yàlla na la yàlla may ay boutique boutique boutique parce que li ngay def danga see yéene doomu aadama te sa xol dafa rafet daf may woo di ma conseil si lu bari di ma naan defal nii defal nii comme noonu rek man du ma déglu ay waxi nit parce que yàqkat fii lañ leen fekk man amul ku may déglu bak sëñ Fallou man sama bopp rek a ma ñor man Marème Nar lijjantiwuma doomu aadama du ma wax ci nit taluma nit maa sama bopp yàlla na yàlla defal jàmm rek laay ñaanal sama bopp saa su ne waaw di ñaanal sama maam tamit comme noonu yal na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam ba ma jàkkaarloo moom tere ko man dara ñoruma lu dul tere sama maam ak sama rak parce que ñoom laa am. billaay wallaay des bu ñu dugalee sa émission wala ñu dugal say message di nga ko lire. man du ma lire message man jànguma aw ma sa jotu liir su ma sa duma liir ma parce que waaye nit déggoon ñu laan noon yaa koy sàkku boo sàkkoo noon yàlla may lok gis nga nit boo ko bàyyee xel rek. yaa ngi koy topp man topp ma nit bàyyi ma xel nit man lu waaye di wax di jëntu mok kon tey jii leen seetaanee lire seen message tontu leen kon bu yàggee damay mel ni ñoom oto bi si ginnaaw kenn du ko corné bi si kanam dong la ñuy corné ñoom ñoo may bàyyi xel ñëpp ñuy wax si man dañ maa bëgg suñu ma bëgguloon duñu wax si man man xale bu buggaabul laa chaque jour la may wax damaa buggaabul force da ngeen ma koy nangul ndax ñaata ñaata vidéo la ñuy romb si mbedd yi ñaata vidéo la ñuy gis TikTok kenn faalewu leen man rek la ñuy waaw ah, dama leen di ñaanal yéen ñi may topp dama leen di topp ba faw kontaan naa nag yéen ñi xëy di ma lijjanti di wax si man yàlla na leen yàlla fay comme noonu kenn la wax jafe-jafe ngay jànkonteel en tant que jigéen barki yàlla chaque jour gars damay am lu ma parce que rek xam nga rek nit kon man bu bu ma toogee ne aw ma lu damay fen parce que ay nit dañ may man du seetaan ay commentaire la ma la wax mais ñu ma jege dañuy lire commentaire woo ma naa ma dégg nga li mu wax ma ne ko kooku moo ma bàyyi xel mais man bàyyi ma ko xel barki yàlla samay raq yaay dañuy am lu leen metti si affaire yi mais man la li ma leen di wax chaque jour rek man ku si mere sa bopp nga mere na man man boo xamoon li may dund jaru nga may mere man ku ma jàppee ni nii da nga maa mere ay ree may def laa la dama lay romb dama la faale xam nga sax duma la faale yow mi yow mi may mere ak ñee di ma bindal message yéen a bëgg yem si man duma la faale mais man li may dund xam naa ko bu baax te li may dund ma yàlla le dinaa ko dund ba dee te jàmm rek laa am essentiel doo ma dox doo ma fekk si lu fi ñu may xeebee doo ma gis dama yërëm mais man nit nag boo ko xamul xamoo ko comportement boo si dee gisé doomu aadama chaque jour doo fi jugee wallahi al azim mais yàlla baax na yàlla yàlla leeral yoon yëpp. des fois buñ lay buñ lay buñ la wax yéen mooy que Marème Naar du nit ku baax euh, Marème naa day sol yenn solin yu bon yi Marème Naar kilote bi muy sol Marème naa nangam des fois boo yëg yoo nit ñi di la ko wax lan lan lan lay def ci. amul ku ma si gën. ñiy wax loolu ñiy wax loolu amul ku ma si gën. wala ñuy jël sama vidéo di collage naan xaj bi nangam nangam amu si ma ku ma si gën boo duggee seen biir famille boo duggee seen biir famille la fa nekk man Marème Nar amu fitu def ko Marème Nar li may sol yoonu kenn nekk si ndax kenn jëndalu ma yére taxaw ma si kenn ne ko abal ma ma may wala may ma wala lebal ma lu ma sol maako ko moom abu ma yére kenn lépp lu ma sol fàlla sant santul beneen sant fàlla sant sama xaalis la jar def ma ko si ñàkk sudul noonu ba am ko daf maa leew te dama koy sol ba abadan lu ma sentir laay sol lu ma saf laay sol maa moom sama bopp nit moom ma man yàlla rek laa bàyyi xel ak sam maam ak samay rak amul keneen kuy dund ku ma lay ku yaakaar ne ma rem naa sóoraale na la amul ku dul sam maam bu jigéen booba maa ne ma nit waaw chaque jour lay dégg lu ne lay dégg mais moom li ma koy wax rek yaay booy sa sët boo ko wooloo rek sa day sedd waaw ah, incha allah man ci jàmm rek laay dox ku ma si dee zizé chaque jour da ngay sonn man Marème Naar amul ku ma si bàyyi xel tey la presse di gën a bëre Marème Naar di gën a dagg yaram di wax la ko saf def la ko saf te daw ma yotaat pas de bir wi xale ambu tayaas laa si biir wi rek laay dox ba ma juddoo ba tey ñu ngi biir wi te deewu ma dofu ma bàyyi la ma nekk si jàmm waaye ma ñaanal amul ma dellu ginnaaw pour presse ni daw ma si yotaa comme noonu day zembere rek. kon tey nga ñëw ñu mbooli man ak yow. waa zembere eh, eh, day zembere rek. su defee naan. ay njëkk njëkk. maa la ko daax xale yi ñuy gisee ñëwal ñëwal maa la ko taxawal maa la ko daax. mbooli mbooli. ay mboole kontaan nañ ñu ngi lay jaajëfal yow suñu yow moom yàlla moo ñu boole wax dëgg yàlla nga nekk nit ku baax ndax euh, des fois li ñuy faral di wax rek euh, communication wala ni nit di waxee wala nit di solo buñ ci gise nit kii ku baax la xam naa ko xamante bi yàggul waaye nit ku baax la des fois dama koy wooy sax sonal ko ñu tooñante ñu kafree ñu lay jaajëfal di la kontaan yow Dakar People nga bokk en tout cas suba moom yéen rek laay topp sa kër lañuy lañuy lañuy yéen rek laay topp topp ma benn rajo benn télé topp ma ne suba yéen rek laay topp <laughs> kon suba ñu xaar la yéen a ko kontaan nañ ci yow waaw ñu ànd si lépp merci beaucoup jërëjëf Aïssa jërëjëf ñu amoon tey Marème Naar naaru presse bi comme ni ñu koy defee ak moom rek ndax ku ne xam ne suba euh, dañoo jëm ci bis bu am solo euh, diggante presse ak ki xamante ne mooy Jokkel ndax ku ne xam ne suba suba mais tey nag dinañ ci waxtaan ak moom préparation suba bi suba nan la indi nee nag day mbolli day zembere day dagg yaramam loo ci mën a xew daal loolu suba nañ ko xaar combat bu mag dox ci diggante Jokkel ak ki nga xamante ne ah, mooy presse ñu xaar ko loolu ah ñu ngi jaajëfal ñëpp Aïcha di kontaan ci ñëpp di am mbégte ci ñëpp di wax nag suba incha allah ñu xaar presse ak jokkeel ay salaa ci àndaloon moo nekk ci caméra bi saa su nekk rek ayaa ngeen ci àndal moo nekk ci micro ñu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp di wax ba beneen yoon ci beneen émission sociale jërë ngeen jëf.